فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد ألم تر أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي أعطك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك حقك سوف يعيد ألم تار أن الرزق ضاد ورائح وأن الذي أعطك سوف يعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبارك جاين من لين نيو دي نيو تي تورو سين يين دوم يو نيك فلي تي بيت بوب مبولم ساكو يو لين يو باهو dem ba France ñu bëgg a waajal seen xëllëg xëllëgi àllaaxira ñu ne kon nañu dajaloo li ñuy faraatu ci weer wu nekk ñu xam luñ ca dindi suñ ko dajalee dana mat dara dara jooja ñu sàkkoo ko yiw jubluwaay bi tax ñu ñëw kon fii mooy yëg ne barab bi ñu aajo woo ndox la te ndox bokk na ci bunt yiw yi gën a rëy ndax képp ku xam ne jëriñu na ca ndox ma moo xam naan walla sang wala fóot ba ci rab yi ci naan yàlla subhaanahu wa fay bindal ka defoon loola xiwu xam ne moom rek a xam na ma xem te it feeg nit ñaa ngi mën a jëriñoo teen ba ka nekkoon sabab ba su dundatul itam sax xiwu dana ko fekk ca fa mu nekk ca bàmmeelam xéena jooju moo tax ñu xool fii xaajo na ñu dem fa ci lu ñu ne xam nañ fa wala suñ bokk fa nekk wala dara ña ko def kii moo ca bokk boo ko laajoon tey la tànkam soog a jëm ci dëkk bi Mokhtar Sall tey la tànkam soog a jëm ci dëkk bi waaye xam na ne bu xamut waa dëkk bi itam xam na yàlla miy fay ñam xàndal itam ca liggéey ba xam nañ yàlla miy fay kon fañ ko jëmee xam nañ ñoo xamut ñu du seen hitte waaye fañ ko jëlee xaajoonoo ñum déet loolu tax bi ñu dikkee ci réew mi am na mbooloo mu ñuy wax mouvement alfala ñu yëg ne liggéey bu ni mel fokk xam ku ko tiimal de ko xool loola lañu ñu ci alfala moo leen koy xoolal da leen teete ca yoon wa man mii de wax ak yéen Babacar Sall kon sama taxawaay loolu la ci dox sama taxawaay dafa nekk ne maa ngi bokk ci alfala ànd ak ñoom da leen teete ci yoon wi ci turu mboolo mooma moom Moxtaar mi itam mu teew ci turu mboolo mooma ca France di sàkku xiw su ko defee li ñuy ñaan yàlla subhaanahu wa mooy teen bi nekk sabab dañu mar ba faw ci dëkk bi nekk teen bu xam ne bu bëree bëree ndox la bu barkeel a barkeel teen bu xam ne danañ ci dimbandiku ci jaamu yàlla dimbandiku ci ci defar njaboot gi dimbandiku ci suñu àdduna ak suñu àllaaxira yàlla na ci yàlla def lu ëpp suñu yaakaar CNTN bii bu ko mel dikkagut Sénégal lu ko waral mooy daf de teen a fàttaliku bu xóot a xóot ka ko joxe ca France jigéen la ju xam ne mu nga dëkk Palestine waaye mu ngi bokk ci ñi nga xam ne yahood yi nangu nañ seeni dëkk yahood ca Israël maasale nañ seen dëkk nangu ko moom nag mu fàttale ko fa mu cosaanoo mu ne bëgg naa defal yàlla ab teen tuddee ko seen dëkkub cosaan booba nga xam ne yahud ya ko foqante ci ñoom أيها الإخوة ها نحن أولاء في قرية اسمها نجانين وهي تبعد عن عاصمة دكار ب 300 كيلو وبمجرد النظر إلى الصور ستروا أنها قرية فقيرة خاصة من ناحية المياه ولله الحمد بلغنا أن التي أنفقت ومولت آه هذه البئر من إخوة لنا من فلسطين عجل الله تحريرها وهي تبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وهذه المرأة التي مولت لا شك أنها وإن كانت عن بعد فهي عضو من الجمعية لأنها طالبة ومبتغية للخير فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجاسيها من الخير ما فوق ظنها وأن يجعل هذا الخير في ميثان حسناتها وموازين حسنات والديها وأن يجعلها من أسباب تحرير Palestine al muxtal euh, fu ñu dem itam ci mbiru teen baax nañu leeral ne gaskat ba nga xam ne mooy gas waa dëkk bi seq ñoo moom lu du teraanga pay gi ñun la war yéen waa dëkk bi yéen ñi bëgg ndox yéenay ànd gaskat bi naan ko de xam naa bu ñu ko defoon dana gën a baax xam naa su xaagoon fee de dana gën a baax matériel ba cay dem loolu joxuñ ko borom dëkk joxuñ ko gaskat ñun ñoo dem ca dëkk ba jand ko suñ ko jandee jox borom dëkk facture bi mu xenu matériel ba indi sant na yàlla bu baax maa ngi leen di nuyu yéen gan ñëpp ak yéen waa dëkk bi ndax nek ngeen gan yu xamne yu am doole ci islam la dekk bu mu doon ragal na su fekke ndox nekku fa ni ñoo mën a yalla man xaw te daan nañ ci sonn lool sax da yi wër ñu ni dañ daan jëlé fi ay jigeen ñuy dem di huti fofu di indi su ñuy mag fakal suñ bop ci suusi di gas bi am teen teen bokk na ben ciment du ca nekk teen boobu du mën a fan soo teen bi day dem ba mu yàgg rek mu bur daanu kon su ngeen ñu indi loo xam ne lii nii tey lu jafe la luñ manu dara ñun pexe mënu ko kon foofu moom sant gu sant gi leen waa dëkk bi sant moom ñun mënu ko misaal am na départ waaye amul amul fi ko yemale moom ndax ndox moom ñun mooy suñ mbir moom boo doon julli it soxla nga ndox mbooloo mu tudd sàkku xiw te nekk ca France ñoo ñëw jàppale ñu ci mbir moo xam ne mi def ñu tëwoon mbooloo mi ko def yal nañ yokk ba yëg ko ñoom ñëpp yal nañ ko defal ñeneen ak ñeneen. ana asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di wax alhamdulilah rabbil alamin ndax lii dañ ko yàgg bëgg ndax ñun ndox dañoo jafe lool dinañuy góorgóorlu gas waaye ndox mi du yàgg teen bi yàqu kon ñu ngay wax alhamdulilah rabbil alamin ñu dee lii suñu soxla la bari nañ soxla waaye bii moo ci raw bii moom moo ci raw kon nag jërë gene jëf jafe-jafe yi ñu am fi ñu am nañ jafe-jafe ci ndox lool ñaarel ba am nañ jafe-jafe ci hôpital ñettel ba am nañ jafe-jafe ci suñu jàngu xalé yi ndax ñu ne palaasu kay mo ñu tax loolu suñu jafe-jafe la wa di sant nag waa sàkku yu da leen wax hiw giñ hiw tudu, mu nelen yal na leen ci yalla jàppale yal na leen yalla doli hiw wéral leen alaykum maa ngi leen leen gërëm di leen sant di gërëm mboolem sappiir di leen wax ñu suñu jafe-jafe lépp ndox la waaw sonn nañ trop ku ñu dimbale ku ne daal yàlla ngay defal ndax sax suñu jafe-jafe daal ndox rek la waaw ndox daal ak barabu jàngukaay moo ñu manqué waaw mbooloom sàkku xiw maa di nuyu seen tur ak seen da leen sant da leen gërëm ñee xamat seen bi yi neen daa ne rootee le ba sa jële dëkk ba fi mu ne buñ jëlee peen yët ñu ko ci mbooloom sàkk réew war nañ leen a gërëm war leen a sant te ndox ñàkk na fi du ndox muñ sangoo daanañ ko am du ndox muñ fóotee buñ fóotee ñu ngi fóotaani si dëkk yi le waruñ jërëjëf ñu leen di sant da leen gërëm waaw mbooloom sàkku xiw ñu leen di gërëm. ñu ngi sàkku ci yàlla soxna si def ba bett ñu xéwal gii jox ñu loo xam ne njëriñam ci kaw suuf lu dul ndox ndox la ëpp pakam ba nga xam ne moom lañ jël bam noo kuy dippee xéwal gii ñu indil pàkkam booba leen na na na dëpp dellu ci loxol julli gi te am naa yaakaar ne loola dina am te yëg ne dëgg mooy mujj الذي أعطاك سوف يعيد سوف يعيد ترى أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي أعطك سوف يريد ألم ترى أن الرزق غاد ورائح وأن الذي بسم الله ما نقول إنه يتسم طلعت فين فان دي نيو وان نوار لنا كما سلسلتين بي ci sàkk yiw bi nga xam ne ñoo ñëw ci dëkk bi pour seen teen bi nu commencé ko man mii di wax ak yéen nag yàgg naa liggéey ak ñoom nuy ñaan yàlla ñàkk ndox mi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ngeen sonn ci yàlla dimbale leen ba teen bi nga xam ne sàkk yiw def ko maye si ci dëkk bi mu doon teen bi nga xam ne moo gën ci teen yi bi waa sàkk yiw bi nga xam ne ñoom ñoo koy maye di wër réew mi di ko maye ci néew doole yi nga xam ne danoo néew doole pour am ndox moo xam ne mën nan koo jëriñoo ndax soo toogee yow ci sa bopp war a fóot war a jur war a añ war a def lépp dem tool ba pare ñib si amoo ndox moo sangoo amoo ndox moo toge loolu musiba la sàkk yiw bi nga xam ne nag ñoo koy def di ko maye ñu ngi leen di نيانال ألم تر أن الرزق غاد ورائح غاد ورائح وأن الذي اعطاك سوف يريد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد ورائح وأن الذي أعطاك سوف يعيد ألم تر أن الرزق غاد غاد ورائح وأن الذي أعطك سوف يعيد وأن الذي أعطك سوف يعيد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر لكل غد رزق يعود جديد فلا الجود يفني المل قبل فنائه ولا البخل في مال شحيح يزيد